am na ñoo xam ne soo leen waxee ne naar bi dëgganut dañ lay wax ne suñu wërsëg moo ci jaar lu leen neex wax ndax fi àddina la iblis dafa ne yàlla ana xayrun minhu ni min naarin wa xalaqtahu min tiin man maa gën aadama ndax yaa ngi ma bind ci safara moom yaa ko bind ci ban kon naar mooy safara muy tul ma naar bii yóbbu la ci naar bële moo di safara am na ñoo xam ne daanaka ci naar lañ ne mooy safara piir la ñuy dund ndax bis bu nu waxee parier rek moytul yow jullit nga am na loo xam ne dëgganut ci yow donte ay million nga ciy gañe dëgganut de ndax gañaa la moytul ma naaru balaa mu lay dugal naar